ñu ngi leen di nuyu a ñëwoon ci benn vidéo wax ci Marseille bi nga xam ne démb danañ fubal depuis nag Marseille bi mu ak nga xam ne mooy Pape Alsane Gueye loolu nag moo ci ñor dañoo ci loolu gën ci euh, développé mais démb nag Marseille mooy suñu gaynde bi muy Ismaïla Sarr ci taxawaay bu rëy bi nga xam ne ma ngi am fële ci nga xam ne mooy Ismaïla Sarr biir dana ñëw mu bokk ci grand joueur yi xam ne ñooy ne ci monde bi ndax euh, am na ay qualité yoo xam ne mi moom daan ñëw ci loolu nga faram fàcce mais laata loolu dañuy wax yéen ñi nga ci biir page yi ngeen abonné te ngeen bës nga xam ne mooy cloche notification bi pour ngeen am suñu vidéo ah taareel fii ci Nouveau Sport lu ngeen mën a li nga xam ne mooy suñu objectif sama gars yi coach xam ne mooy Iliman Ndiaye bis dana ñëw Ismaïla Sarr bis dana ñëw mu bokk ci nga xam ne mooy grand jour ah ci monde bi maanaam euh, moom dafa gëm Ismaïla Sarr toujours ñaar da ngay joué maxi moom mu jeex tàkk ndax Ismaïla yàgg naa ko wax ba muy coach xam fu mu koy rek dana def exploit ndax dafa gaaw mën a doole am otage te gis nañ ne moom Ismaïla Sarr euh, euh, loolu bi coach bi ñëwee dafa gën a confirmé mais nag li ci ñor mooy suñu trois indi yëpp moom instant yi nii côté bi dañuy may temps de jeu dañ ci titulaire lu la nekk loo xam ne dal na xel Sénégal yëpp ndax nag am naa trois jours Marseille bés bu ñu marché rek soo ñëwee loo ci yokk da ngay am effectif bu dëgër